ah. Boussa nga je pèse bien mes mots. je pèse bien mes mots. Pikine Pikine ba mu daj boo yeeg yëpp ama rek laa fi mën. yow Ziza dama lay fay Ziza dama lay fay boo yëpp nag. Ziza da lay defaral de. ama rek laa fi mën Boussa nag yéen a nga Alaaji Mbaye. Pikine laa. yow Ziza da lay defaral Pikine. Pikine ba mu daj laa la wax Ama rek laa fi moytu te xaw ma moytu la rek li ci des ko booy yëpp. barki sëñ Bam moom rek laa fi ji. moom la fi moytu. ay Pokola. ay Pokola. Sakho bëre door ak bëre simple yëpp. Pokola bëre simple. bëre door. non Pokola bëri simple lay bëri. mais oui Pokola bëri duur bëri simple lay bëri. mais dogo dogo dogo. a eh, dogo. waaw ah. ah. non non non gannaaw dama koy jàngale dama koy jàngale parce a boole da nga koy dóor mu dem na ala da nga ko fekk ne mooy dóor xam naa ko day yàq dara. cinq jël dix minutes. loolu maa ngi deux minutes deux xam nga dara at entraîné wu ma nii. barki Serigne Saliou Mbacké. mat na six mois. xaw ma set daw ma daw. bi ma bëree yow laa gëj laal weñ. mais bu dee bi may bëree yow. entraîné wu allahumma salli ala. barki Seydina ma feebar nga liggéey ma dem ci ay sëriñ. yàq ma tuuti yaa ngi dégg maxu suba teel moo dindi liggéey ku baax la maxu dindiwul dara mais boobu ana gauche droite ne lay gauche droite dafa génnoon yow gauche droite din génnul léegi maa ngi nii gàncax hmm. ku nekk cent mille maag yow bu ñu defee une minute nga jël xaalis léegi ñëpp ñëpp gis naa léegi daal ba pare daal ba pare daal ba pare bu ñu defee may dégg ñëpp ngi may dégg. xam nga ni bëre dóor daa am loi. mën naa koo rey mën na maa rey. dama lay rey dama lay rey sàmm mais bu bëggee léegi léegi ñu bëre simple léegi ma daan ko. bëre wu ma simple dañuy xaar dóor dama lay rey dama lay dóor ba nga dee. fii ci Dakar fii bëri na léegi damay léegi léegi ma sëg la léegi ma sëg la. fii beneen ndel a fi am solal fii beneen ndel a fi am. fii mooy deuxième ndel beneen ndel a fi am yaa ma bële. kii moom ak ndel fu mbaa du ñëw. woon yow wuy ma poussé. dafa mel ni moom mu jël sa avance moo ko gën a jël avance Tapha Tine. non kii ñëwewul sama avance bu ko ñëwee ñu bëri simple léegi léegi. eh doo ko kaay. non non non alaaka may ma poussé ko. mais poussé waa Pikine sax xam nañ loolu. combat bi dañ ko bëggaat waaw ma naa ko man alaaj bay bëggaat naa ko parce que sénégalais yi man sama sénégalais yi ñoo kii maa ngi moom kii ñoo ngi moom doxal lamb promoteur bu ko bëggaat nangu naa pare naa pour bëgg lamb dafa lamb day yàqu maa ngi moom saa duggee ci lamb defaraat lamb lamb sax du am problème yaa ngi daanoon naa ko yaa ngi dégg mu ñëw liggéey ma ki ki muy ci way waykat waykat ñu liggéey ma kii maa dem ba gis fi ma takk ci benn fas parce dama doon fas buy daw benn fas moo ma woo moo ma woo moom naam ma alaaji li ma la def non man damaa gore man damaa gore mënoon naa bëreeg moom ba pare ba ko fa damaa bëreeg moom ne ko kaay ma yóbbu la ñu dindi ko est que dem naa mais gars yi dindi nañ ko dindiwuñ ko ba léegi damay lox loolu ci premier combat bi la wala loolu ci premier deuxième combat bi la deuxième combat première bi ñoom ñëpp mais booy café gi tuuti na de booy waaw café gi moom la axlu bi di suwee waaw waaw waaw waaw waaw buuse ah axlu café a waa bale ñëw di waaw barkeel tey bàyyi mais mais dogo dogo tey sa frère moo la seet si tey xol bi dafa rafet kii bu xëyee nekk président de la république man du ma bett parce que xol bi moo rafet yaa ngi dégg xol bi dafa baax mu nekk ko am jom nag barke Serigne Touba Mbacké nekk sama xarit man comprendre nga waaw dama bëgg ñëpp jël exemple sama diggante ak moom parce que àdduna amul solo yaa ngi dégg barke Serigne Touba du toog journée ba journée bi jeex te xeex dañuy xeex bu ñu waree juboo dañuy juboo yaa ngi dégg jabaram am na lu ma dégg ñu ne am na fu mu toll bu ci yàlla bu ko yàlla may jàmm am na lu ma déy ah dama alaaji balaa ma balaa ma am jàmm dama laa tuddee doom waaw man barki démb laa ngi gis jooy si ndox jooy sonn naa ci xanaa ci xoolaat ko bu baax xoolaat ko bu baax léegi Babou Ndiaye bu ñuy bëriwaat. Aladji Mbaye da lay daal di daal da lay daal dégg nga. waaw eh, non ren de. paaka doo yóbbaale paaka. Ah. bel bel suuf amu naa xamoon nañu ku daan foofu waaw. Ah. maa poussé xam naa dina bëri li Thione Seck naan noonu naa dinaa xewi ji waaye bu boobaa ñu naan amoon na fi temps. Ah. lépp lu mu nuyoo tàggu na la. billahi barki Serigne Bamba Xaadimu Rasuul promoteur bu ko bëgg ñëwal deux un laa soxla parce que un un doo ko may wax ma jaaxal sponsoram ñoo am doole ay parti waaw mais man yow man Ousmane Sy ku muy mbokkum ndayu Abou mbokkum nday Del Piero ah mbokkum ndayu euh, kii kii Fall. Aline Fall Aline Fall. ah mbokkum nday Ama Baldé. mais Pape Diouf laa lay tegal de. gauche droite gauche droite l'international. Maxu suba teel laa lay tegal de ba pare rek limal. Dafa Diop limal Maxu suba teel. <laughs> Mariasin may sa biir nga may sa biir nga baar. waali ballaago oh kii ñi ma yor yoru moom ñim lim yépp sama ñett leen mën ñett duñ seen morom. Pape Diouf boo ko limee rek waxatoo Pape Diouf fi ne nii xam nga ni moo xew la moom rek a fi génnee lu neex nit ñi di ko ay raba bi yëpp xam nañ daan àll. kooku day duma waate. wuy ma fii rek. waaw déglu ma rek kilifa la. wuy ma Pape Diouf kenn weddiwul ni c'est un grand daanaan. waaw waaw dégg nga bu laay baal la buub mi kenn mënu la wax dara faramaareen bi mariage mbay sa bi ga mbay sa bi ga maar ci nga 10 ans fii ak 10 ans ci kanam sa doom dina jàng école ñëw ñu ne ko loo leen jàng tey mu ne la papa mariage mbay sa bi ga mbay sa bi ga parce que xamal moo tax parce que xamal moo tax affaire yi dafa toll ci ay procès pare nga est-ce que yaa ngi dégg pare nga sa doom dina jàng école yow sa doom dina jàng nga ne ko loo leen jàng tey mu ne la balaago rakk may naa la deux cent mille barke sëriñ may naa la deux cent mille moom moo la gën a xam ni jamono ji kenn la fi ne muy Superman Love. muy Superman Love xam nga ko. mais publicité bu neex nga def nag. sa yoo yoon newul ci loolu. waa ji nee na la wala alaaji mbay nga ko day nelaw. eh baa li ngay wax. ndaw bu ndaw bu soxorewul loolu. waa ji ne ko waa ji ne ko waa bi mu ne ko téléphone bi baaxul ay batterie yu bon la ci def. loolu waroo ko def may jaxase moom de. loolu waroo ko def de. may jaxase moom de. non eh eh dama lay wax dara affaire bi du affaire nag xaalis. affaire na xam affaire na lan la xol la yaa ngi dégg kii dama xam li ma yéene moom moo xam li ma ko yéene otom bee mu jënd ay millions bi ko jëndee barki démb man la ko njëkk a woo téléphone wax ma ko parce que kii sama fierté la man man fierté am laa comprendre nga lu bëri nag journaliste wala wax di xamoo yan point ngay waxee moo koy yàq mais kii États-Unis ba mu nekk sax kër gu mu fa fëgg ne asalaamaaleykum ñu ne ko alaaji loolu yàlla dogal na ko ba pare comprendre muñ nag buñ ko naan gaynde la moo tax ñu naan ñu naan ko gaynde xamal gaynde lu tax ñu naan ko gaynde muñ nga du mën a fàttali fit ga de muñ nga. yaay waaw gaynde bu lekkee léegi fa la koy bàyyi dem. du ko denc ba suuf mais mais ana maa may bësiri te lu mu xiif xiif xiif du lekk mbir. da ko da ko ana maa loolu loolu loolu loolu moo di loolu sax. dégg nga waaw. Bécaye wax nañu. waaw wóoy ma wóor na nii tamit nag wóoy ma. Ah. Père Bécaye moo ne nañ ñëw def émission parce que émission yi muy def temps yi. neexul neexul. neexul yéen a ngi neexal émission yi wax. Ama Baldé fa ñëw de. Ama Baldé émission bi mu def neex na ñeneen ñee neex. Gris Bordeaux fa ñëw de. Gris Bordeaux neex la woon. guy gi moo fa ñëw. ama bu sam neexul na bàyyi raay. ama na bàyyi raay bi. ama la raay mi ngi raay. lan la raay ama di kii affaire islam yi muy teg léegi. ama islam ama islam ama lamb ko. ama islam man eh seen biiram laa ne. ama waaw mooy lamb lamb ko bëgg nit ñi namm ko san ñaata cinq ans six ans ama bëriwul xam nga ama bis bu bëree arène nationale arène nationale mamp adduna yëpp lamb la ko nay tàngal moom day daan force day daan li mu a wax na ko wax na ko xam nga lu man moom laa faral xam daanu ama balde mais léegi ay pour close débat bi yéen ñaar un un bëgg ah, sénégalais dañu daa wax ci ama daa lu ma ci wax ba pare ama seralul xam nga tax seralul dafa am ci point taxawaay bu mu nekk am ci ay kilifa yu mu nekk comprendre nga ñu ne ko waxeel nii defeel nii defeel nii ah. mu nekk ci ay contrat ah. ñu ne ko contrat bi nii ngay def pour bëre ko boo weesoo contrat bi jour yi moo ci tegu et c' est à dire et cela après nga bëre combat bi gagné ko ñëw fii comprendre nga ko coxé comprendre nga ñun suñu problème mooy ay affaire de ménagement nag yooyu te lii kii dañ ko jël teg ko suñu wet lépp da xam gëna yi boo xoolee bë nga xam lépp mais li bu yeboo képp kuy communicateur di ko ñaanal mu gudd fan. waaw parce que parce que Baye Fall la moom du fekkee Baye Ball bu su ma ko doon tuddee benn tur ci alxuraan yi pour wallaahu xat laa koy tuddee. Eh, pour wallaahu xat laa sama parce que. eggali ko oh, dama xaaral pour la xaar. eggali ko après eggali ko pour wallaahu allahu sama. lam yali walam yulam. walam yam yàquluhu. aywaay ah, ah, ah, aywaay alaaji bu mu rusloo waay. alaaji bay dama la jàngi. alaaji Moussa jàngi la. parce que sëñ Baba yaa jàngi. pour wallaahu xat allahu sama. lam yali walam yulam. walam yam lahu kufuwan axad wala siri wala wala siri wala wala wala buusi yow da nga rek ci barki si yow ay waay buusi gën a jàng de buusi bi jàngul de gën a jàng de buusi bi gën a jàng de buusi bi wala siri buusi leen sal la fi la fi buusi jàngil leen la siri amuru jàngil la hat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr wa tara ma mala samin anzalnahu fi laylatul qadr wa hadraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bis bismi rabbiki min kulli hamdi salaamun hiya hatta mazal fajar. dama dama dama ah dama dama xam nga lu tax mu mën boobu. nee nañ kon loolu naafeq bu ko munul doo dugg àjjana nga ba mu jàng. loolu nga tax nga jàng loolu àjjana nga jëm. inna anzalnaahu fii laylatil qadr dafa neex. wa maa adraaka maa laylatul qadr. loolu dafa neex laylatul qadri xayrun min alfi shahr. tanazzalu l-malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr. mais ndeysaan waaw mais xoolal lii lii neex na. wallaay donc àdduna moom lu dul jàmm jàmm ko gën waaye ñu teemal ci sëñ Bamba de laa dama lay daan